parce que moo indi situation bi yëpp en réalité euh, c'est une situation inédite parce que tout simplement il y a un acte inédit qui a été posé par le président Macky Sall c'est aussi simple que ça euh, j'ai vu vraiment boobu ba léegi ñuy tuumal ay nit bon disons ñu désigner ay nit le PDS les recalés et cetera ñoom soo defee le cocktail la ñoom ñoo tax ñu reporter élection yi man damay fàttali ne de l'histoire politique du Sénégal il y eu il toujours eu des acteurs de la contestation toujours amul élection bu ñu jëm te amul ay nit yoo xamante ne taxaw nañu ne ñun de d'accord ñu ci élection bi muy doxee musul am je donne l'exemple de 2019 2019 ci lañ njëkk a jox ci lañ njëkk a euh, mettre ce qu'on appelle le parrainage 2019 il y a même eu des échauffourées ci buntu conseil constitutionnel les gens l'ont oublié 2019 am na ay candidats ñu recalé yoo xamante ne dañu mujj dajaloo ñoom entre ñoom pour contester loolu 2019 ñu parmi les principaux opposants yu nekkoon à l'époque dañu leen tere woon nekk candidat sur la base de rien du tout muy Khalifa Sall muy Karim Wade 2019 le président à l'époque muy président Wade dugg na sur le terrain politique ak force bu mu am ak taxawaay bu mu am dem ba menacer brûler les urnes mais tout ça n'a pas fait reculer le président Macky Sall donc le prétexte yu ñu jël pour ne moom moo tax président Macky Sall jël na décret bi c'est des prétextes yu amul benn tolluwaay par rapport ak li xewoon 2019 mais soo orienter les projecteurs sur les prétextes là bu si ne durant le temps dafa daanu dafa tombé soo jëlee lu mel ni euh, commission d' enquête parlementaire commission d' enquête parlementaire amul benn lien ak ay élections benn quand on parle d' accusation lan moo tax tey par exemple le candidat de de Amadou Bassirou Diomaye nekk candidat parce que il bénéficie de la présomption d'innocence l'accusation n'enlève pas l'innocence tu es accusé mais tu es innocent tant et aussi longtemps que ta culpabilité n'a pas été démontrée donc accuser nañ ay nit d'accord mais il reste il demeure innocent en tout cas du côté de la majorité ils ont totalement innocenté ku ñu ci accuser muy le premier ministre non seulement ñu bàyyi ko ci postam mais ñu renouveler confiance bu ñu am si moom donc je pense que dossier boobu nañ ko teg fe d'autant plus que fu ñu jaar lii gën a mën a tax premier jalon bu ñu mën a poser bu ñu mën a tax sañu mën a apprécier c'est quand il y aura un rapport et ce rapport-là est insuffisant pour accuser quelqu'un parce que le, une commission d'enquête parlementaire ce n'est pas la justice ce n'est pas la justice le fait que ñu ne non le juge n'est pas venu donc il y a une crise non n'importe quel citoyen appelé à répondre à une commission d'enquête parlementaire peut décliner parce que amul conséquence kenn du la fi jàpp kenn du la fi tëj donc commission d'enquête boobu tolluwaay bu ñu ko jox amul nañ ko teg fële mënul nekk prétexte nga ñëw sur les recalés je l'ai dit en 2019 amoon nañu doon casse il mm-hmm. les a pas reçus peut-être bii pas arrangé na ko mais les recalés il les a répondu mm-hmm. il a brandi l'article 92 de la constitution en leur disant écoutez je vous ai bien entendu j'ai de la peine et tout mais les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et le débat était te Mmh. C'est éteint ñooñu faxas leen bokkutuñu kan ngay indiwaat moom kese moo taxaw jël décision sans base légale en faisant une maanaam mu dugg si biir processus électoral ci moment boo xamante ne daf ci waroon génn loxo. parce que moment boobu ñu tolloon président Macky Sall lu mu waroon yëpp def na ko lu ko dese woon mooy toog xaar la fin la main de son successeur mu dem mu dem mais il a préféré dugal si loxoom. donc soo gisee ne amul justification bu valable bu ñu mën a teg sur la table parallèlement nga gis ne ne amul base légale ça veut dire que d'une manière unilatérale le président Sall dafa interrompre processus électoral qu'est-ce qu'une élection dans un pays une élection, elle extrêmement importante parce que ça ne concerne pas seulement les acteurs politiques. Une élection, ça concerne le peuple souverain. C'est le moment, c'est le rendez-vous du peuple. C'est un moment fort de la démocratie. Donc, loolu nous doon xaar, ñu war ko def, nous décider d'une manière unilatérale, sans base légale, interrompre ce processus. moo ñu indi situation ñu Donc, c'est ça les faits.